ñu nga nuyu ñëpp ñu ngi nuyu mbokka internet yi di nuyu képp koo xamante ni mu ngi ñu di seetaan di nuyu suñu xariti Gambien yi suñu xaritu sénégalais yi. Mm-hmm. di nuyu mbokka internet yi di nuyu képp koo xamante ni mu ngi dee seetaan site bi. Mm-hmm. ñooñu xamaluñu seen fay. Mm-hmm. di wax nag ñu ngi dee gis commentaire yëpp. waaw di wax waa Gambie nañ dee commentaire bi ñu dee dee seetaan. seenam seenam mbooxaa moo neexaat fii Sénégal. Mhm. Sénégal ak Gambia benn la. kañ lay nuyoo. waaw mun ngaa nuyoo. salaamaaleykum. Oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk nag moo leen di nuyu borom yàlla kese barke bi yow ma la xaamal ak bar Jom Jàlla jaajë Fall ma Samba nee na Fall nee na Demba ak nee na madame Diallo nee na yaa si ñuut tey ci décembre bi leen jëm ak yéen. xam lii. la ñuy wax dofa du ko wax yaa moom a xew <laughs> da ko moom ba pare nag la lañ bokk da nga dee noppi mm-hmm. yow nu ma laa invité suma plateau ma yor suma émission bind ko suma papier nga ñëw nga présenté wo nga lii la ñuy war a wax te waruñu waxal loolu wàccil kayit bi rek yow te yàq xamal lu ma la wax waaw voilà internet yi tey lii ma leen a indil ci wàllu décembre bi laa bugg a ñëw ak yéen mm-hmm. waaw góor ñi nga xamante ni dañu dee ray rayaat rayaat ray rayaat kan waaw dafal ndànk ku baax kan mooy jur sa doom ba pare di ko ray kooku kan la sa gu guur dox di raya doom jur ba pare xama nga xama nga maanaam xama nga maanaam ah, ray rayaat boo xa déggee mm-hmm. raw na sa sa gi xamante ni dañ dee dañ seexa ak jigéen ñi di solo protect axrajan ah, maxrajan protect bu ñu paree ndox bi dañ ko dee sànni foofu benn <laughs> rey na ne taw <laughs> rey na ne président wala ñu rey ministre lu ma wax munoo ko dindi oh, loolu téere la wax nga dëgg foofu ma conseil la leen ndax kii li mu wax dëgg la protec bi bàyyi leen protec man li ma jaaxal décembre décembre rek décembre bu jubsee buñ décembre yooyu ba ca suba boo demee ci pharmacie bi ne ko ndax am nga protec danaa la jeex na man lan moo tax décembre bu dikkee protec yi naan wuyaa yooyu wuyaa yooyu li léegi wurusuli ak mbokk te ngeen bàyyi lii ngeen def seen gu metti ma wax la benn affaire. Hmm. proté moo gën a yombaat ci lu ñuy dee jaay. ñaata est mos est-ce que gis góor bu ko euh, góor da dee boxa ak yow yamba. Hmm. da dee boxa ak yow cigarette. Hmm. boxa ak yow pon. boo ko ñaanee mu maye la. mais boo xamee bëgg jot ji ko célibataire nee ko maye ma proté. <laughs> kon wuy ma célibataire am na ak i marié tamit am na ñoo xam ne si dañuy bàyyi fële seen jabar dem di wékku ci keneen naa ko may ma ma weer sama bopp ma nattalu sa bopp omo xàcc xaa yow booy booy boo demee ba bëgg a nattalu wala boo boo demee ba bëgg gis sa bopp nga dem xool xale bi nga bëgg nga dem ñaan ko ñu may la ko ci farataay yàlla sunna ma mais bu décembre dikkee nga gis mooy mooy cal cal di lappi lappi xamaa xamaa dafa la daaxaa waaw xama yéen da nga daa bugg a wax si décembre décembre he go bona na go bona golo to adima golo to samandi golo to dimas <laughs> every time mo ngi dey bon wax nga dëgg every time day time rek every time mo ngi time yaa ngi def fil samedi waaw voilà léegi nag bu ñu jógee si xale jigéen yi waaw maa e ngi dema si xale góor yi xama mm-hmm. ci <laughs> góor ñi maa e ngi dem ci xale jigéen suma bo suma suma suma suma suma tension bi da day dama dee day waxee ay xatar xale jigéen yi nga xamante ni décembre bu dee ñëw mhm. dañu dee tàggoo ak seen i sago da nga dee gis décembre xale jigéen bu joge e, e dëkk ba dëkk mu dem seen a góor waaw xamal loolu est-ce dagan na loolu amulu fenaa ba pare xoolal góor yi dañ da dee nax xale jigéen yi di leen naa wax boo ñëwee ma dugal la fii ma joxala bi ma joxala lii loolu du dagan wuy ma li mu wax nii lu wér am na ci xale yu jigéen yoo xam si dañuy bàyyi ba ci seen nday nelaw seen bàyyi nelaw ñu yolleeku ndànk bu ñuy génn kër ga nag dañuy wodd mël foofu nga naan ndeysaan ku yiw ngi nii bu ñu demee ba génn koñ ba tekki ko solal la solal la loo xam si bu seen juróom waddee bu seen juróom waddee barke bi yow mal xaama la kabar buñ koy for ngay gis mbàcc njaay gi mu ne càdd a man xam nga ñaata métier laa def hmm. defe naa dix neuf mille euh, euh, métier dama doon dawalaat taxi décembre daaw xale jigéen yoo xamante ni dama leen dee yëpp ñu sol yére xaftaana bu rafet. ndeysaan bu yiw. bu ma ko gisee lu ma wax rek dama ko dee yëpp. xam nga mm-hmm. suma xol bi bu gisee kooku dama dee wàccaat. ndeysaan. mais su duggee si oto bi ma gis mu fotteeku solo yére bu bon ma ne eh dama dee tiit ba mbëkka beneen oto bu nekk suma kanam. kon léegi dégg ngeen preuve bi man maa ko doon wax mais léegi preuve la. waajur yi. maa ngi leen di conseil leen yéen waajur wi ku ci amati sa xale sa sa sa doom bu jigéen bu tëddee boo tëddee ba guddi demal nga vérifier ko ba ba xam xale yi ñëw nañ ci sa wet wala déet ndax instant bi décembre bi moom xale yi jigéen ñi dañuy cukkur muut góor ñi dañuy cukkur muut ca nag beneen bi mën naa la ko wax man daam lu ma jaaxal gis naa fi xale yu jigéen yoo xam seen kër barke bi yow mal xiyaam lakk bar amunul sax dépasse bu mat ca xale bu jigéen bi mi ngi wuyoo téléphone buy jar huit cent mille waaw amuloo crédit dañ dee ñaan connexion de. waaw mais léegi loolu baam bi ko lijjanti. waaw waaw ah, ah, ah, waaw mais boo juree sa dooma nga baaxoo mu def lu xa neexa mu dema ci xale bi indi xaalis. waaw doxal laaj fu mu koo jëlee. waaw eh, booy moom am na droit mu jënd iPhone bu seer. moo tax di eh, bu ëmbee doxal laaj foo ko jëlee danga naan ko ay eh, mujjee ko amoon na ci woon bi. waaw bàyyi bàyyi diw doom ñu dee ko de. moo tax moo tax ma wax de. moo tax ma mais suma réew fële Gambie. Hmm. boo fu boo ko defee dañ la dee fàtte. dañ lay reen dañ lay reen. leen booy dañ dee daw. di nga ci gis waajur woo xam si ëllëg yomal xiyaam sunu borom dina tàngal aw yaram bam tàng jër ndax xamalal waajur wu nekk sàmm nga ci sa eh, sàmm nga ci njaboot ju nga jiite ëllëg deeñ la ko laaj de lu leer laa lay wax nag baax na xam nga maanaam demana ji ñu suñu es bi suñu yaram dafa dee tàng waaw xam naa dañu dee dem ñi seetaan yi am nañ suñu benn mbokka boo xamante nii moom mu ngi si internet bi mooy booye bu gàtta boobu noonu rek te mu xaw a tenta bopp bi Paulus mooy Paulus mbay waaw kooku du nuroo kaña aa kooku waaw léegi dañuy dem ñi seetaan li mu wax ci décembre ak décembre ak 24 ak ak le premier janvier xale jigéen ñi dimbali leen ma ngir dem rasulillahi ngir yàlla ak yonent bi ay muy chrétien te nekk jigéen il faut ngeen protéger seen taat yi déjà xale góor yi ay cagale moment bi ay cagale lañ leen di nax yóbbu leen ci appartement yi mais ku ci mën da bañ a seeti safar nga kuusu kuus bi c'est-à-dire mooy la nga sol ñeenti jiin wala nga sol juróomi jiin waaye am na xale yi wala sax léegi soo ma soo ma soo bañee dem wala nga dem ba ñàkk mu ñëw dem nga ne bébé s'il te plaît dama indisposé xam si boo indisposé dañ ko cay sabañ xale goo xam ne dañoo cagg xooluñu indi fóote xooluñu dara ñoom daal nañu dañu gisaane rek mais ngeen di ngeen ngeen di seen caane bi ay caga lañ ay caga lañ xool aussi gis mu wax dëgg waaye keroog tey da wax na dëgg wax na dëgg nag xale yu jigéen ñi ku ci seeti si kenn foola solal ñeent fukki tubay ak benn quarante tubay yi. xoola xoola xoola booyam bi moo dee. robu noonu léegi nag kontaan nañ si yéen bu baax a baax wuy ma. Euh, abonné leen zem leen commentaire leen décembre bi li ci xew lépp dinañ leen ko indil man Oustaz Ahmed Diop Fall Mbëgg kontaan naa ci yéen ma jox leen caat mu tàggoo gi yéen. jërëjëf waaw li indil leen si décembre bi mu ne la caat ànd ak mm-hmm. bu maga bi Gambia bu maga bi sénégalais bu maga bi tey maa neexa fii ci risim bi maa ko dee yëngal every time. ku baax fii ku ma neex moo fi toog ku ma neexul du fi tooga sa mbay ak sa baay ñooy toog ci plateau bi yow yow doo la ñëwati fii mu oh, xaj fii su ma télé la lu ma neex a moo fi xam damaa xam ne damaa xam leen ne mooy senegal senegal ah. mooy Gambie mun kam danaa wëree seen waa kër wasalaam ah!